bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ala asrafil mursalin sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xadimihi ajmahin fadilata seex xadaraati duyuuf alkiram ayuha almuridun ahbaba seex abdul ahad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yusarrifuni an urahiba bikum bismi usrati sayxi Abdul Ahad wa fi muqaddamatihim fadilati sayxi Serigne Sidi Mbakke fi haasihi almunaasaba alsarifa munaasaba sikra batalil islaam wal muridiya alsayxi Abdul Ahad radiallahu taala anhu wa rafaxana bi barakati fi haasihi almunaasaba yushiru almuslimuuna aama wal muriduuna xaasa mahabbatahum li sayx wa ixtiraafahum bima qaddamahu lil ummati alislaamiya min ahmaalin jalila fa yusaarikunana fi ihyaai haadihi sikra musaaraka jamila wa lisaalika la budda min taqdimi waajibi sukri ila aljamii wa nuqaddim saahiba alfadila alxalifata alaam alseyqi alhaaji mohamad lamin baara xafisahu llahu wa nasara faqad qaama bi janibina xaq alqiyam kama htaadahu maa jamihi ahli seyqi alxadim radiallahu anhu walam yansa tilka al alaaqa al mumayasa bayna sayxi muhammad al faadil wa sayxi abdul ahad radiallahu anhuma walam yasal yarxaa saalika al aqd fiina fa jasaahu llahu anna xayra wa uqassisu aydan shukran jasilan li sayxina sëriñ siidi mbakke xalifati sëriñ abdul ahad allazi yaquumu maqaama sayx wal waalid allazi yaxtamu bi su'uuni atbaahihi wa awlaadihi wa nashkuruhu ala al amaana allati anaataha alayna fi tansimi haasihi al munasaba al jalila wa askuru aydan bismi al usrati assulutaat al xukumiya wa fi muqaddamatiha al sayid Madické Niang faqad qaamat bi dawriha fi fi tawfiiri jamihi lawaasim kama yanbaxi wa saalika bi tawjihin min al sayid al rais Abdullahi Wade ayuha al ixwa atawajjahu al aan bismi seyxi sëriñ siidi mbàkke xalifati sëriñ abdul ahad ila jamihi atbaahi seyxi abdul ahad li askurahum ala ma yabsuluunahu min ngeen bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu góor ak jigéen bàyyiwuma kenn mag ndaw ci turu sëriñ Sidi Mbakke xalifatu sëriñ Abdou Lahad Mbakke di jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi alxaaji Mouhamad Lamine Baara Mbakke xalif général de Murit di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yaram ba fi mu bëgg a àggale yoon wi ak lislaam ji mu àggale ko fan ni mu ko bëggee te nu fekke ko ci daraje sëriñ Tuubaa bi loolu jàllee nag noo ngi nuyu mboolem bokk yi yéenu bokkal sëriñ Touba li tàmbalee ci njabootu sëriñ Mouhamadul mustafa ba ci njabootu sëriñ Mouhamadul Mourtada ak mbooleem seexi yoon bi yépp bàyyiwunu kenn ak taalibi ak mboolem taalibi yi yaakaar sëriñ Touba ak fu ñu ko mën a yaakaare ci biir cant googu nag ci biir nuyoo boobu ci bokk yi nag ñu jiital ci sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké xalifatu sëriñ Sohay bu mii teew ak mboolem mbooleem kër këri sëriñ Touba yi teew fi ci jataay bi te buñ tuddee sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké ñëpp a nga ca biir kon nag eh, sëriñ baa ngi leen di sant cant gu wér goo xam ni xam na ni ànd ngeen ak noonu bis bi wéetuñu ci benn yoon won ngeen ñu ni fàttewu leen sëriñ Abdou ak li ngeen diggaale woon ak moom kon nag mi ngi ñaan yàlla na leen yàlla fay ndax bii taxawaay yàlla rek moo amuk fayam jërë ngeen jëf ci googu fànn bi loolu jàllee nag maa ngi dellu siwaat di ndaw yi bàyyikoo ci gouvernement bi ci turu Serigne Sidi Mbacke xalifa Serigne Abdoul Ahad ak ci kàddoom akub teewaayam di jiital ci nuyoo bi nag maître Madické Niang ak ñi mu àndal di ay kilifa yépp di Thierno Lo ak Sakho ak Xaadim Guèye ak ñeneen ñoom ñi ñu àndal ña ca topp ñépp ba ci gouverneur ak ki mujj ba ci ki ci mujj wàcc ba ci ki ci mujj suufe kon sëriñ baa ngi lay ndokkeel nag ci pal gu yees gi nga xamee ni dénk nañu la ko ci fan yu nu weesu di la ci ñaanal yàlla it kóoruteef gi ñu am ba dénk ko ak yaakaar gi ñu am ba dénk ko nga am ci ndam ni nga ko bëggee ci daraja Serigne Touba ndax yow sag taali bi ñëpp mën na koo seeree ci kër Serigne Touba ci ci ci fànn yépp kon Serigne baa ngi lay ñaanal di la yóbbante nag ci président de la république di la xamal ni Serigne bi xam na bu baax a baax fi ko président de la république teg. xam na it li mu seq ak moom xam na it li mu jàpp ci moom xam na it kër gii mu nekk ni mu ko jàppe te amul lu may barab bii amul lu may kër gii te xoolul lu may kër gii te gis na ni mu ko téyee ak ni mu ko jàppe kon nag moom li mu koy ñaanal yàlla moo xam la dig bëggam lépp luy ak bëggam na mu ko bëggee rek yàlla nag ko yàlla defal ci barkeb Serigne Touba mu amee ko ni mu ko bëggee bi loolu jàllee nag euh, ci biir ci biir cantu président de la googu nag ci lañuy ñuy tàbbalaale ay jëmm yoo xam ni faw ñu tudd leen ndax seeni taxawaay ak seeni yitte ci kër gi ak jàpp bi ñooña nag ndax bis bi ñépp da koo bokk faw ñu tudd ci ay nit Khalifa sàll di meeru ndakaar yabal na fi ay ndaw yu man ndaw ñu taxawaay fi taxawaay bu rafet Pape Diop itam di président Sénat Abo sàll yabal na ko fi ak ñeneen ñu taxaw fi taxawaay bu rafet Ousmane Masseck Ndiaye itam yabal na fi Basiiru Jaxate boole ko yeneen i nit ñëw teew fi taxawaay bu rafet Macky Sall itam Alioune Badara Cissé ak Moustapha Cissé Lo ak ak mbooloo mu baree bare bari yabal na ko fi ñu xëy si fi yandoog noonu ba lépp jeex seex Amari di ab taalibe boo xam ne képp ku xam Cheikh Amari di taalibe suñu Tuubaa ci nga ko xamee amul frontière ci genn kër jëf na fi yoon jëf jëf ju mat sëkk ak taxawaay bu mat sëkk noo seere di ko seere sëriñ bi Euh, alaaji Njuba Saaxo di jarbaat ci président de la République moom it teew na fi Moussa Mané di taalibeeb sëriñ bi moom it teew na fi sëriñ Ba ak waa këram gépp kenn desul ñoom ñëpp teew nañ fi ngir seen diggante ak sëriñ Abdou Lahad ak li ñu seqoon Malick Cissé itam di taalib bi ci kër gi di fi wëllëre moom it teew na fi Souleymane Ndeena Ndiaye it ay ndawam a ngi ci yoon bi ñu di ko séentu ngir kóllëreem ak sëriñ bi akub taalibeem ci sëriñ Touba. akuk jàppam seex Abdou Lahad ak def gum ko def référence ci dundam loolaa waral ay ndawam ñu ngi koy séentu fii ci kër gi Mamadou Diop Dakour waaye yabal na fi ay ndaw yu man ndaw ñu ànd ak ñun ci liggéey bi ba lépp jeex bi loolu jàllee nag ñu beral nag benn taalibe boo xam ni soxlawut sax ñu war wutoon sax ñu di ko beral cant ci barab bi waaye nag jëf ji la ak jëfin wi muy paate jaxate ndax kat li Abdou wax léegi sëñ Abdou Lahad daa wax ni saa la nit defa saa la nit defalee lu ñëpp gis war nga ko gërëm ba ñëpp war nga ko gërëm ba ñëpp dégg ko paate nag taxaw na ci bis bi taxawaay boo xam ne musu cee denc ci taxaw benn waxtu jamono ju ne mi ngi ciy sonn di ci taxaw taxawaay boo xam ni sëriñ bi seere na ko sëñ Abdou Lahad mi tax mu di ko defit gis na ko waaye faw nu seereel ko nag mboolem jullit yëpp ak taalibe yëpp ñëpp xam taxawaay bu rafet bi nga xam ne jëf na ko ci kër Cheikh te du ci dellu gannaaw mukk kon sëriñ baa ngi koy sant di ko ñaanal ci barkeb sëriñ Touba lépp loo xam ni man na ko ren bu déwee nee mu man lu ko ëpp ci ci barkeb Seexul Xadim di ko ñaanal nag te taalibe yépp bu loolu jàllee sëriñ ginnaaw bi sëriñ baa ngi jottali nuyoo mbooleem ci njabootu Cheikh Abdou Lahad Mbacké gépp moo xam doom la wala taalibe sëriñ bi nee na mu ngi leen di fàttali sunu jàmbaar ja nga xam ni yitteem jëpp ci jàmm yàlla ak wéetal yàlla la ko jeexal tàkk te daa ko digle ndax moom day daf daa wax ni ataamuroona naasa bil birri wa tansawna anfusakum day du ma dal mukk digal nit ñi lu baax ba noppi bu ñu xoolee duñ jël seen sa tànk ma daawul doxe noonu loolu mënu daan digal nag muy jaamu yàlla ak wéetal yàlla nag texe texeeg àddina ak àllaaxira ci loolu la mën a soqi soqi ko sëriñ baa ngi koy digal bépp taalibe bu yeex yaakaar Cheikh Abdou Lahad te muy sunu buntu ci Cheikh Abdou Lahad mi ngi nu koy maase digal nun ñëpp ak fonk liggéey ak jàpp sunu njaambur ci mépp mbir moo xam ni sunu yoon nekku ca ndax loolu waxi sunu boroom la toll lool la seexab Abdou Lahad daan wax wala tax fu maa laysa laka bihi hilmun ndax kat inna samha wal basara wal fuaada kullu ulaayika kaana anhu masoola kon tey sa làmmiñ ci lu sa yoon nekkul baax na lool loolu nag loolu laa leen bëggoon a fàttali ci jaamu yàlla gi dëppale kook sunna si yonent bi ak liggéey ak jàpp sa njàmbur ci mépp mbir mu sa yoon nekkul loolu sëriñ baa ngi koy digal bépp taalibe bu yaakaar Cheikh Abdou Lahad ak nag fonk sunu taalibe ndax kat Cheikh Abdou Lahad dara yiteelu ko woon lu lu may ak taalibe loolu la sëriñ bi wax tey jiit it bi fi suñu àllaaji liggéey ñaari baat yi sëriñ bi wax taalibe yépp war nañ koo dégg ñaari baat rekk loolu yóbbaale na ñëpp mooy ay taalibe leen fas yéene doo doon ba bi ñuy wujj suñu borom tabaraka wa taala loolu ku xam Cheikh du Lahad xam ne looloo di tànkam looloo di doxinam ci la daan xëy ci la daan gont kon nag sëriñ baa ngi koy soññee ci mboolem taalib bi yépp ñu fonk seenu jaamu yàlla te fonk seenu taalib bi ba mat sëkk ci seen diggante ak sëriñ Touba fu ndigal dikkee na ci ñépp def lañu man ak lañu mënul ndax Cheikh Abdou daf daa wax ni sëriñ Touba daa wax ni soo ma defalee loo man ma defal la loo munut soo ma defalee loo munut ma defal la loola jomb te sëriñ bi yéene den yéene na taalibe yépp ak jullit yépp kenn ku nekk nga am loola jomb ci sëriñ Touba kon nag li ci li ci des euh, ñu fàttaliku koo xam ni kenn la ci sëriñ bi muy soxna ndeelawat ci suba ba léegi mi ngi fi bokk ak noonu lépp ak taxawaay bi ak jëf ji ba lépp àgg kon sëriñ baa ngi koy sant di ko gërëm nu beral ngërëm nag sunu mbokk mbokk moo xam ni buñ ko tuddee fii sax jàppees na ni wareesu ko fi tudd waaye ñu ngi koy sante ni ñuy sante paata jaxate ndax jëfam soxna Kiné Mbakke ak ñi mu àndal ñépp ndax ni mu jàppe sëriñ bi ni mu jàppe Seex Abdu Lahat rekk la bët yi muy xool seexab Abdu Lahat loolu la ko xool yëma ndigalul sëriñ bi ak bëgguk sëriñ bi guddeeg bëccëg loolu lay dàkk di ko xencu kon nag bu ñëwee fii war koo seere ci kanam sëriñ bi ni ñu ni ni ñu seeree yeneen bokki taalibe bi yépp sëriñ baa ngi ñaan nag ci barkeb sëriñ Touba ci bisu màggalu seexab Abdul Ahad gi nga xam ni Seex Abdul Ahad daf daa wax ni amuñu dara lu nu mën a yaakaar man caa teg baaraam gannaaw suñu bakkan lu may sëriñ Touba kon nag sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ci barkeb Seex Abdul Ahad képp ku teew ci màggal gii wala nga yëngu ci wala nga jëf ci wala nga yéene woon cee jëf ak nu mu mën a demee boo jógee la nga bëgg nga dajeek moom ci daraje Seex Abdu Lahat te loolu wóor nañu ni bu ko sëriñ bi naan ñaani Seex Abdu Lahat nu am ko noonu kon nag nun nanu rafet njort te wéral pëstéef yi te gën a góor góorgóorlu nun taalibe yi nag ñu beral ko sant moom mi toog di ko ñaanal yàlla bu wér a wir yàlla yàggal ko fi ci barkeb sëriñ Tuubaa ndax kilifa mënut ñàkk te ko sañoon itam kilifa gala yàllay jox dee su ko jam ci lenn ba tax na loolu sant sant nañ ko yàlla sant ko sëriñ Touba damoo wuñ ko puukarewoo puukarewoo wuñ ko dañuy ñaan yàlla Serigne Touba yàggal ko ba yéene yi nga xam ne yéene na ko liggéeyal Cheikh Abdou Lahad ci gannaaw alaaj Hadj Mouhamad lépp Serigne Touba def ko te nu ànd koog ñoom wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Mbakke bi sëriñ bi wax ci la Serigne Cheikh Mbakke moom sëñ Modou Fati xar yi moom itam egg si moom Cheikh Massamba Mbakke. di kenn ci sëriñ Sidi sëriñ Cheikh Mbacké Mesere mi ngi fi di rafet lu baax teewaayu nag ah Cheikh Amar di taalibe kenn ku ne xam li jëf ci kër sëñ Bamba léegi nag ne ñépp tàllal sëriñ bi ñaan Mbacké sër bi sañ naa maye meew waaye jàpp ci jur gi maye nag ki moom jur gee ko sañ yaay Cheikh Abdoul Ahad na ñépp tàllal na ñépp tàllal yàlla nañu ko teewaat weer wi kenn bañ a manqué Cheikh Mamadou Lamine Bara yàlla na fi yàgg Mbàkke téwén amin amin Mbàkke amin te ngeen may kilifa yi nag bañu ñu génn